jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax na tey nag maa ngi Parcelles unité 7 fekk seet ki nga xamante ni mooy Iba su mu nee Iba nag mu nekk Parcelles Parcelles mbooloo nekk xale boo xamante ni ndaanaan la nekk xale boo xamante ni nii euh, bu bàkkoo mu neex bu mu neex ndax xale boo xamante ni day jox làmb àkkam saa bu bëree képp koo xamante ni nee nañ sa combat taxaw na yàgg moom rek di nga xam ne tey am nga làmb di nga xam ne tey am nga bés ndax di nga xeex di nga bëree mbokk yi ma fàttali leen ko moo ngi ci six komba mm, cinq victoire benn défaite yaakaar naa combat mujj bi lay doog a daanu digganteem ak euh, booy bi sax nu mu tudd. ndax fàttali naa trop. <laughs> Batista numéro 2 digganteem ak Batista numéro 2 Batista moo ko mujjee daal ñoom ñaar nag bëri nañ combat bu méttee méttee métti métti te yàgg waaw. ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Iba nuyu naa la. oui fay naa la Ouzin. waaw ñu ngi nuyu ñëpp partout dans le monde parce que Ibra du Ibra Sénégal kese. Hmm. partout dans le monde ñoom Modou Keita borom Espagne xaw ma Italie ñoom dañuy bëggee. Hmm. waaw xam ma ak sama gars yi nekk West Side États-Unis gars yëpp ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee. Hmm. waaw di nuyu sama yaay bu baax yàlla na yàlla guddal fanam xam nga ba mu fekkee suñ njëriñ sama papa mu dëddu yàlla na ko yàlla xaaree aljanna. waaw ak barki Demba Ndiaye ki ñuy jooy ba noppee guñu muy Moussa Dioum. Moussa Dioum waaw yàlla ko yàlla xaaree aljanna. xam nga yàlla may ko leeraayu bàmmeel dafa yóbbu ko fu kawe njortu nit ñi ak njortam daal parce que sama grand la woon sama papa sama lépp la quoi. Mhm. waaw yàlla na yàlla defal jàmm. waaw wasaare làmb. Mhm. Euh, balaa balaa balaa ma sax ci sa carrière wala ci kii parce que ku ne xam ne ku ne xam ne sa diggante yow ak Moussa Dioum sa diggante ak Moussa Dioum complicité bi nga amoon lan la. waaw parce que Moussa Dioum moom xam nga man du ma ko woon wax sax grand bi quoi man papa wax. Mhm. ndax li waraloon loolu moom daf ñu jëloon doomoo waaw mu sax Dioum tey man lépp lu mën a xew ci sama moom day ñëw. xeebalu sama dara. man aussi tamit ma déggal ko respecté ko moom tam mu nekk xam nga papa bu papa bu ñàkk ñaan quoi bëggul kenn meer mhm. ñi ko xam xam nañ li may wax nii. Mhm. mais yàlla na ko yàlla xaaree aljanna quoi. Mhm. waaw te incha allah man rafet naa si njort mi ngi aljanna. Euh, parce que ñu gis ñu gis ñu gis écrit yu bari bi parcelle mais nga taamu woon parcelle mbooloo la moo la moo doonoon la moo waraloon nga nga nekkoon ci écrit bi. waaw écrit bi lu waraloon ma nekk ci mooy ñun dañu nekk ay xale quoi. Mhm. xam nga ñun buy jëmi di dëgër boo fekk na Moussa Dioum tijji na écrit parcelle mbooloo. Mhm. aussi que tamit suñu la te ñun ñoo bokk koñ. Mhm. te ñun parcel la ñuy bëggee fu ñu am parcelle moo ñu ko gënal. ñu dem foofu di jàngantu bëre. comme ni mbëri tàmbalee rek. ba amur bi dugg ñu ñu ne ci nii. waaw noonu la demee quoi. kañ nga kañ nga kañ nga commencé dugg ci ci ci parce que defe naa ne su ma su ma parce que dégg naa ci say wax euh, mbapat nga lu bàyyi bàyyi bàyyi kañ nga commencé mbapat. waaw mbapat moom mënuma tàmbali mënuma mënuma xam quoi bi ma ko tàmbalee. Mhm. waaw parce que man moom ko ñu làmb laa dëkk. Mhm. man dama doon toog rek nit combat am yàqu mbapat mu ñëw ne ma carrément sama combat yàqu na ñii ak ñii ak nga bëri. Mm-hmm. ma jël bëre su ma jëlee bëre aussi tamit di bëre di daan di bëre di daan comme ñi may wax ñi dëkk si koñ bi xam nañu am nañ benn gaale bu nekk fii gaale naar yi mm-hmm. ñoom képp ku fi mbër nii jaar nga seen loxo mm-hmm. ci koñ bi fii mu amoon benn gaan bu tuddoon Omar Naar si yàlla si yàlla na ko yaara xaare aljanna ak rakam Abdou quoi Abdou Naar léegi ñoom ñaar ñoo ma jëloon sax ne ma carrément yow mbër nga soo taxawee sa bopp moom dinañ la dégg fu sori commencé ma yóbbu seen kër xam nga di ma su ma amee combat ñu may préparé di ma préparé ba fi ma yegg si nii. Mhm. ba léegi nii sax seen grand Ndiaga Fall maa koy nuyu passage mi ngi Ross Béthio. Mhm. ba léegi moom moo may yóbbu làmb sax. Mhm. waaw noonu daal laa amee xam nga amour bi quoi. mbabat mbabat mbabat lan nga ci jot a moom jël naa si télé jël naa si nag jël naa yu bëri daal. ba mbabat nga fàttaliku ne mbabat bi bokk na ci mbabat yi la gën a neex. waaw mooy mbabat bu nekk mbabat Doudou Bakar Sarr rek. tonnerre 2 tapet bi bi ma koy daan foofu ak raxam bi. bëri nga ak tonnerre nañ mbapat foofu ma daan ko alabadu xam na lima may wax bu écurie Dakar trois ans yi mu ko tëgg yëpp benn yoon laa ko perte. ñaar yëpp yaa ko jël. waaw ñaar yi maag Cheikh ñoo dem ba final ñu pile ko daanu de. Mhm. waaw dañoo dem ba final ñu pile ko mu gagné. da ngeen bëri lu yàgg waaw dañu bëre combat bu métti ma ak Cheikh moom xam na li may xaw ma léegi fu mu nekk gisatu ma ko. Mhm. mais fu mu mën a nekk na am jàmm parce que grand bu kul la. Mhm. mais daal tapet bi tonnerre deux foofu laa ko daane daal nañ ci ñi may wax te seenaan làmb ñoom alabadu wala waa aslem yooyu xam nañ li may wax. mbapat boobu daal bokk na ci mbapat yi la gën a neex. waaw parce que boobu noonu foofu moo njëkk a nekk sama dëgër piir Mhm. parce que foofu laay doog a sentir sama bopp ne man war naa mën a doon dara ci affaire bi. ok ndax ñu fa nekkoon ñooñu lañu gën a xam ka man. Mhm. mais damay gis dama leen damay bëreeg ñoom di leen daal jël yoo xam ne maa day taali. ma ne kon fi ma teg sama tànk foofu la. fii daal bu ma ko teggiwul comme sama naar yi lu ñu ma waxoon. dama mhm. boo ko gëmee daal sa affaire la kon affaire yi mi ngi ñëw. waaw. Mhm. Ah. ban moment nga sentir ne Iba Ngabou war na dugg ci lutte avec frappe parce que nag boo nekkee ci mbapat bi di ràññee di toj di ràññee di toj jékki-jékki bëgg a dem ci lutte avec frappe te ku ne xam ne ne bëre dóor ak bëre simple duñ benn ban moment nga sentir ne man mi kat war naa dugg ci lutte avec frappe. waaw lutte avec frappe moment yi ma ci waree dugg sama fan si club bi. Mhm. ñoom ñoo dem ba sama kër manager. Mhm. ne ñu kii dañu sonn ñun si lutte simple bi kii foog mu léegi bu ñu wax bu ñu ko demee wax loolu moom tamit mu contacté ma ne ma ndax pare nga. moment boobu jàppoon ne teel na wala xam awawoon loo ci xawoon di jiixi jaaxa. non mënu ma gis ne teel na parce que boobu noonu maanaam bu dee ñun bu dee sport ñu ne xale moo koy def. Mhm. ñun ay xale lañ. Mhm. bu dee doole néew ñu doole. Mhm. te bu dee ñaan am na ñu yaakaar ñoo xam ne nii tey yaakaar naa ne fu ñu yegg si nii bu ñu ñaan lu woon woon duñ fi yegg si. te day gën a yokku sax. parce que boobu critères yi nga xam ne maanaam mbër da koy am yëpp muy bëree fit doole ñaan yëpp mu ngi si ñun ba léegi nii. Mm-hmm. te loolu mooy bëre ak fan si club loolu mooy bëre. instant bi su ma kóol dafa fay nii mais su tàkkoon nii bu ma la wanee groupe bi man du ma xam sax lu ma war a tontu parce que combat combat combat combat. Mm-hmm. xam nga noonu la sa premier combat yaakaar la woon ak kañ la woon. te ma premier combat maag Samba Ndeleng woon quoi. Samba Ndeleng kañ la woon lool. waaw loolu nag xaw na diire tuuti quoi. Mm-hmm. xam naa dama koy xaw a plané. ok. waaw Samba Ndeleng bu Ngunjaan boobu moom mi ngi nekk ci show bu doy waar sax. ok eh, ñu bëre bëre bu metti yi ma daan ko man sama combat moom mënul yomb. non man koy loolu bokk na ci li ma jaaxal parce que tamit say combat ni muy yàggee métti. xeex bi bari ci bëre bi metti lool lool man loolu xaw na ma jaaxal ñan ak ñan nga jot a bëre. Samba Ndeleng ak Baboyo ak. Euh, gars <laughs> nu mu tuddati sax. doomu Patar. Mhm. ak gaaroo gaar mm-hmm. ak euh, xaw ma xaw ma sax ñeneen ñi koy xaw a plané mujj bi daal yow ak yow ak yow ak yow ak kii la nu mu tuddee tuwaay euh, fàttali ma moom da nangu nangu nangu ta jàpp tur bi Batista numéro 2 mais sa diggante ak euh, mu nekk xale boo xamante ne nag xale bu jar bàyyi xel la Batista numéro 2 ndax nekk na xale boo xamante ni saa bu ñëwee dina wane leneen lu bees loo xamante ni nit ñi xamuñ ko woon ci moom ndax gis nañ ko euh, bi mu bëree euh, bi mu bëree Iba Ngaabu jóge na fa keroog am na fi Zamax yàlla dogal moo am ci ndam amaat beneen jéego boo xamante ni teg na ko ci làmb waaw mais bi nga ko bi ko jëlee mu ci bëri ne da nga koo yow boog da nga koo xawoon sous-estimé da nga koo xeeboon da koo xamul woon wala. waaw xam nga moom bi may bëreeg moom maanaam bi ñuy dox combat bi. Mm-hmm. xaw ma ko. Mm-hmm. mais xam nga rek fii Sénégal la quoi. Mhm, daaw du waaw ak médiatiser bi nii mu médiatiser boppam ne moom xam nga. def na temps de combat nii boobu day sóob. Mhm. bu dee ci mu def Dakar fii ñaari combat la def. Mhm. te ñun bu fekkee ñun booy temps fii ñun euh, ci combat bëre dóor. ñun combat yi am la ñuy favoriser ne carrément mooy combat ren. xam nga parce que man bu dee àll bi mais boole ko sama palmarès. ci ñaari combat yi def mais dafa sóob ne carrément def na cinq combat fii cinq victoire. Mm-hmm. man tam boo maa woon cinq combats cinq victoire. Mm-hmm. waaw après combat bi gars yi di ko dox di ko dox mu taxaw aussi. Mm-hmm. bi mu taxawee après samay nit yi bàyyiwuñu. ñu top suivi bi topp suivi bi xam ne xam nga franchement def naa erreur quoi. parce que dañ ma mujj mere ne ma waroon jël kii patati patata affaire aussi que tamit làmb ji respecté naa combat bi quoi. respecté naa làmb ji mais moom dama ko xeeboon. ok dama ko xeeboon quoi. ko. parce que deux combats yi mu def moo tax nga xeeb ko. wala li nga ko xamul moo tax. non du loolu sax mais xam nga des fois nga bëreeg ay adversaires yu croyance yoo xam ne. Mm-hmm. booy bëreeg nit ki. dangay jàpp na man fi ma jugee noonu ñoo gën a dangereux kii quoi. Mm-hmm. waaw man dam ko xeeboon quoi. mais ngeen ñëw ci digg géew bi ngeen bëri combat bu metti combat bu yàgg boo xamante ne yaa yaakaar naa est-ce leen ba mi-temps. waaw xam nga dañu bëre ba war a mi-temps. Mm-hmm. bi ne non xaama ciblé mi man mii ci boppam boo laajee Malick Ngom dala koy wax maa la ko bàyyi ñu continuer comme ñun ay xale lañ bàyyi ñu continuer parce que en fait man dama gëm lenn ko si géew mhm. boo fa duggee victoire moo la fay jëlee wala machine nul wala défaite mais mhm. bu fekkee ne défaite day ñëw nañ ko nañ ko bëree si jom fit fulla noonu bu match nul day ñëw tamit nañu bëree si jom fit fulla mhm. même bu victoire day ñëw tamit dañuy xam ne kii tamit waaw def na effort def loolu ngeen bëree mu daan la boobaak léegi moom waat na fi ba am comme bëriwaat na fi ba daanaat fi mais boobaak léegi gisuñu sa combat taxaw. lan mooy problème bi. problème bi mooy maanaam xam nga ñun suñu combat yi ñun espoir yi warul mën a jafe. Mm-hmm. mais maanaam mbëri yi làmb ji nii suñu espoir yi daf si bëri ay tapet ñu mel ay tonnerre de yooyu noonu. ay tapel lañ ay Onde le Fou ay tapel lañ. non Tonnerre 2 moom maa maa maa ko fi teew tey tey maay maay maay maay avocat maa koy peleel tey Tonnerre 2 moom lu ko waaye mën a waxal lu ko waaye mën a waxal Tonnerre 2 moom du tapet moom. Tonnerre 2 moom du tapet xaw ma nag yow sa sa tapet gi ngay wax xaw ma fan nga ko jëlee ak foo ko teg mais Tonnerre 2 moom du tapet Ibra. waaw loolu nga wax dañ la koy nangul quoi Ouzin Wassare Lamb dañ la koy nangul. Mm-hmm. mais xam nga tey maanaam àdduna ci lamb dafay doxee noo xam ne tey. mbër mm-hmm. mun na ñeme Ouzin. waaw ba ñëw xam ne ñeme na ko. mais hmm. mun na ragal tamit Ibra. waaw waaw loolu mun naa nekk. waaw ah. loolu day am de te moom xam na ma bu baax doful gi a jàpp ko xam na ma bu baax a baax a baax mais day teg ngaaka naan non kii affaire yooyu noonu xaw ma ko nii ak nii man làmb amul ku ciy sëgg. guddi yi te xaw ma ku ma xamul yi dégg nga ma. Hmm. waaw parce que dama si marqué sama empreinte ndax samay nawle ñoo si nekk. mais nag mais nag Tonnerre fa jamono jii ñu toll nii Tonnerre benn trop. parce que dafa mu dafa teg la ay defet jóge fa dugg paasal booy bi daan ko te ku ne gis na ni mu doon waxee xawoon na sous-estimé booy bi xam nga am ci defet defe naa ne fi mu doon tonné ku ko jël di nga wàcc bu baax a baax a baax yaag say bokk. non maanaam moom bu sous-estimé Giro Seras daa xamul Giro. Mhm. Giro boo ko xoolee si jëmm ji da nax mais daanaan la di ko féliciter si victoire am bu mu jógee. Mhm. te su ma jëlaatee nu gën a pire noonu lay demee. que instant bii nii man mënoon naa xool leneen sax. mais moom dafa nekk nit ki nga xam ne nii xam nga dafa bugg affaire ngand ngandalu moom Tonnerre 2 te du dara man leneen mënoon naa fa teg sama bët parce que instant yi moom ci làmb bokkuñu man benn benn defet kese la am te moom mm-hmm. tegale na ay defeti defet mm-hmm. comme su ma ne ñëwul ñu bëre dama bëgg tamit xam nga ñu ñu bëre daal wane affaire jàmbaar mm-hmm. te maa moom dañoo bokk yoon te nit koo bokkal yoon da nga war a bëre ak moom ah mënoo ko teggi de yeew sa su dul moom sax day mun a nekk keneen waaw parce que ñun bëri nañ ay adversaire peut-être làmb ji moo jébbeekoogul carrément ba ñu gis yeneen adversaires yi mais comme instant bii nii moom libre na man libre naa kenn contacté wu ñu combat war nañ ko mën a tëgg ku mel ne Onde la fu moom tamit tapet la. am na promoteur bu si doxoon mu ne ko non bàyyil ma xool keneen. Ibrahima Kouré on on tapet on daan Ada Fass non mais bi mu ko daanee ba léegi yow benn victoire nga bëgg ko savourer trois ans loolu fan la am si làmb. kon yow làmb a saali sax nag. xam nga mooy problème bi. Mhm. làmb ñun Ibrahima man Ibrahima Gabo sama bopp laa xam man dama si bokk. am si mhm. part de responsabilité bu rëy ay nit yaakaar ma si di ma si ñaanal. Mhm. sama fan si nekk ci di ma xaar. man làmb liggéey laa ko def. mais bu dee Onde le Fou ni mu ko bëgg a jàppee nii. boo daana boo amee benn victoire toog quatre ans doo ko bëriwaat. non loolu yow defoo làmb. Onde yow laa waxal ah, boo ma seetaanee di nga ma dégg tàppen nga jëlal avance bi. xam nga moom bu baax a baax dafa gën a jàppale. mais on nag on nag on nag on du ndaanaan la de. dégg ndaanaanu bëreekat la boo ko gisee nii tamit moom tamit jëmm ji mën na leen nax waaye boo boo boo boo duggee ci moom ah. non oh, dugg si Onde loolu du problème dugg si Onde du problème de moom kañ na ma nangu jël. parce que li muy def nii amul sens na ñëw ñu liggéey liggéey boo si nekkee rek nga si fexee ràññeeku. Mm-hmm. ba mu bëree ba léegi toog na deux ans ay bi bëriwul amul sens. Mhm. gis nga mënoo fi def lu fi nit ñi deful fi ku nekk def na fi dara mais man li ma def dama koo fàtte. Mhm. di xool li nekk sama kanam man li ne sama ginnaaw man jàll li ne sama kanam laay xool xam nga bu ko nangu woon ba instant bii nii kon yi ngi préparé combat. waaj wa waajalaat. bu baax a baax a baax. te ond dawul suñu yaram quoi. grand frère la rek. waaw day ñëw xam nga ñu bëreeg moom. xeex xeex bu saf sàpp bu bëree daan ko xool leneen. mais nag mais nag ni ngay ni ngay li ngay tegee nii xeex bu metti combat yi metti bu fekkee wàññiwoo ko ni booy du la gaaw a jël de booy des fois nag yu xaw a noo yooyu la ñu bëgg. waaw mais xam nga Ibra du mbëru benn action. xam nga mbëru benn action dafa am. Mm-hmm. ñoo xam ne da ngay ñëw jàpp leen fàkket wala nii. mais parce que man man combattant la mm-hmm. man matin damay entraîner soir damay entraîner. ñu ma dëkkal xam nañ li may wax. nii nii amuloo combat séance d' entraînement yi noo ko defee da ngay dem toog ba ngoon nga dem saal xam nga maintien forme wala. non man su ma xëyee damay dem géej. Mhm. ngoon bi damay dem géej. Mhm. su ma amee combat boo xam ne maanaam tey diire na deux mois. Mhm. premier un mois yi laay dem saal. bu jeexee ma bàyyi nekk ci contact yi ak physique bi. noonu daal ngay entraîné. waaw noonu lay entraîné parce que làmb bu fekkee am na foo teg sa bët bëgg fa yegg quoi. mais nit ki mënoo dem di dem nii rek di dem nii kon foo jëm. Mm-hmm. boo jugee bay dem war nga xam fi ngay jëm. Mm-hmm. ok ñun nag am nañ ay prépa ki ay préparateur physique yu baax ku mel ni xam nga suñu yenn coach si nii bëgguñu sax ñuy wax seen tur ndax dañuy nëbbatu. Mm-hmm. mais ku mel ni coach Lamine boxeur chaque jour ñu ngi neexal loxo yi di xaar. waaw salaam moom xam waaw ñun dañ ciy doxal borom bopp quoi. ok noonu la quoi xam nga. fi mu toll daal yàqamti nga daal promoteur yi ñëw adversaire yi taxaw nga pare pour jëflante ak ñoom jéem a jéem a jéem a suul li fi jot a jaar. non bien sûr parce que instant bii nii nit mi ngi may woowee fu nekk ba démb rek démb rek Modou Kayte mi ñu ngi déggante WhatsApp. Mhm. waaw ci grand bi ñu toog néegam nii muy salaam. di ko nuyu itam de passage ak jabaram tamit naas. Mhm. sama cousine mu ngi jolof nii quoi barki démb la dem. Mm-hmm. di nuyu foofu tamit sama dëkku maam bu baax a baax waa Jolof. esaay mm-hmm. démb rek mu may envoyé message whatsapp xanaa amagoo combat parce que bi ma amee combat bi passé fekk mu jógee Espagne. Mm-hmm. booy rafet maanaam añ bi yëpp lu si jëm yëpp xam moom moo ko frais man dajuma si benn coono salaam tam pare moom noonu la borom aéroport. waaw ñoo jàpp ci affaire bu baax a baax. non bu baax ak sama waa Gale ku mel ni sama yaay sama famille ñoom abi waaw ñoom ñëpp dañ ciy jàpp parce que man nit ñi ñoo bëggal seen bopp amu fenn sens interdit. gis ngeen mbokk yi tey Iba Ngabou lañ seet si woon Iba Ngabou bu paasal mbooloo xale la boo xamante ni ndaanaan la parce que defe naa ne bi mu duggee ci làmb ak léegi yàggul mu defee six combats cinq victoires benn défaite defe naa ne jàmbaar la moo ngi bàyyi waayam. ci côté bu baax a baax di wax na ko promoteur gën a bàyyiwaat xel ndax defe naa ni mbëyu ndaw yi ñoo dala jàppale parce que boo xoolee tamit nga jël xaalis bu ko fay mbëyu mag yi bu ñu ñëwee dañuy sëgg di buuxante wala boog bëree bu fekkee ñoom dañuy bëree ba amateur seen xol day sedd amateur yi liñ bëgg mbëyu ndaw yi ñoo leen koy jox kon na na promoteur yi gën a jàppalewaat mbëyu ndaw yi ndax mbër ndaw bu nekk boo xoolee mooy nekk mbër mu mag na ci gaa yi gën a jàppaat soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon waaw kàddu yu mujj du def lu xam nga sant sama waa koñ rek waaw parcelle 1 ba 26 rawatina waa Inter 7 ak waa Inter 5 xam nga di sant sama yaay bu baax ak sama waa kër ak sama mag abi ak Modou Kayta ak salaam buñ toog néegam nii ak jabaram xam nga ak sama gaa yi si jàpp yëpp tey mhm. am na ñoo xam ne dañ may ñaanal sax bëgguñu ma wax seen tur mhm. waaw parce que moor Diouf moom ku ko xamul dégg ko muy Moru parcelle mhm, moom xam daf ñuy rewetaay ay combat yu baax mais aussi tam bëgg nañ mu gën a yokk loxoom moom Mor Diouf. Mhm. xam nga fexe ñu rek quoi parce que làmb xale moo koy def te ñun ay xale nañ toll nañ si. waaw nañu gën a jàppale rek gën ñu bàyyi gën ñu gersu. Mhm. xam nga du ko rëccu daal parce que gëm nañ ko te mun na lu ñuy def. Mhm. waaw te làmb waaw mbir daal pour nga sori si foo nga gëm ko. dëgg la noonu la demee daal. gis ngeen mbokk yi noonu la demee woon ci wasaare làmb ak Iba Ngabou di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër. Khalil kontaan naa ci yow sama joolaa bi